waaw euh, xam nga lii xew euh, da nga koy euh, disons rattaché ak contexte bi ñu nekk xam nga dañu nekk ci contexte boo xam ne nii ñu ngi jëm ci ay élections présidentielles deux mille vingt quatre fii ak donc fukki weer. Mm-hmm. politiciens yi baaxoo nañu bu ñu jëmee ci ay élections vraiment ñuy def ay façon ay manœuvres lu ñuy wax ay manœuvres politiques. ku nekk vraiment di pousse pion di teg pion mel ni maanaam jëru mbiru euh, euh, euh, jeu de dame ci loolu la ñu nekk fu mu ne ni daal maanaam carte gi leeragul parce que y a beaucoup d'incertitudes yoo xam ne moom mooy plane ci présidentielle bi candidat yuy bokk yu dul bokk naka la nar a demee et cetera donc dafa am benn pëccëxoo ku nekk da ngay mën président Macky Sall Euh, ñu bëri jàpp nañ ne euh, amul droit effectivement def donc troisième mandat man ci ñooñu laa bokk. Hmm. Euh, moom ci boppam leeralagul vraiment askan wi intention depuis pratiquement un an gis nga mi ngi ci nii wi nii non kenn xamul vraiment fu mu nara donc fële a chaque fois que nit ñi yaakaar ne xëy na dina gindi nit ñi ci candidature am vraiment mu waaf wax leneen donc ci kaw loolu lii am yëpp. Euh, séparation beeg Idrissa Seck le fait que tey mu jël Ablaye Daouda Diallo noonu ma ko yooyu yëpp daal mooy na ñu ngi euh, def ay manœuvre politique. voilà ci période manœuvre la ñu toll. mais Babacar yow mi nga xamante ni bon yàgg nga suivre euh, politique bi nu muy doxee. Mhm. da nga jàpp ne loolu dafa dafa xeewi wala parce que yaa ngi koy wax ne bon ñu ngi peut-être ñu ngi diloo si suuf bon di am loo xamante ni da nga nëbb da nga jàpp ne loolu mënatul nekk wala dafa xeewi wala. bon cest de bonne guerre on est en on est man jàpp naa ne politique dañ ko war a sellal dañ ko dafa war a ànd ak éthique. waaye nag ba léegi. loolu c'est fii Sénégal ñi nga xam ne waa moom laa ñi nga xam ne euh, ñooy suñu politiciens yi fi nekk li ñu habituel en tout cas. Mm-hmm. mooy clignoter gauche. Euh, vraiment donc droite ou vice versa et cetera bari na daal ay jeux donc je pense que tey. Euh, damay jàpp ne war nañu toll ci ère boo xam ne. Euh, war nañu am une nouvelle génération d'hommes politiques. boo xam ne nii franchement dañuy def politique politique boo xam ne bu sell la. parce que loolu la askan wi soxla. wër-wër loobeeg euh, naxaate yeeg yooyu yëpp je pense que dafa nekk loo xam ne ce n'est plus de mise dafa war a xewi. kon jàpp nga ni jamono ji ñoom dañuy naxante ci seen biir. ah man lool laa jàpp mais dañuy nax aussi. man de loolu laa parce que boo xoolee wax naa ko sànq ne Idrissa Seck boo xoolee dafa ne démissionné mhm. mais xam nga démission vraiment nekkul loo xam ne presque une semaine avant c'était sur la page publique damay dem du dem et cetera. ak lettre bi lettre bi la ko jiitu sax. moom ci boppam président recevoir na ko benn week-end ci weeru koor moom ak ay jigéenu réew mi. président génn ci gafakaam vraiment euh, mi fukki million jox leen jox leen ay billets màkk et cetera. bon une semaine après moom mu ne dafay génn te gis nga lettre de démission bi. maanaam li mu ci tàggee Macky Sall xalamal ko ak yu demee noonu quelque part. mooy ne ci li ma jàpp man kër a ñuy fooyee nit ñi que vraiment ce n'est pas sérieux du loolu la ñuy xalaat donc ci ay euh, euh, homme politique moo tax ñu bëri jàpp nañ ne euh, bien que moom nee na dana nekk candidat mais ñoom ñaar réeroowuñu mm. te man gëm naa ne réeroowuñu